waaw njaay mi alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bu baax xam nga rek événement bi moom bu jub see képp koo gis mu ñëw rek danaan maa ngi dem asalem xam nga ndax asalem bagage yu baax yi la nekk waaw clients yi ñi ngi ñëw nag ndànk-ndànk rek waaw ñi ngi ñëw ndànk-ndànk nag bagage yi moom gis nañ ko nice na trop trop ak événement yi nii en plus que lépp luñ fi gis lu nekk marque la origine la en même temps seeru loo am lu nekk mu jaay la wax dëgg fa yàlla waaw ñëw naa fii jënd samay dàll instant yi nii nii dama dugg nii pour xool yu baax yi ñoom fond de teint ñoom waaw gloss ak lépp loo xamante ne jigéen da koy soxla rek tey moo ñu tax jog ci biir marché bi mais lépp yemb na daal daal yeeg ñaw yeeg lii rek moo desoon te xamoon naa ne bu ñu duggee ci ruq bi ko fekk. si tey moom maa ngi ciy gis sama bopp moom baax na macha allah wax dëgg yàlla client yaa ngi ñëw. waaw jaay si tey téeméer rek dama koy wante client ni moom ñu ngi ñëw ñu ngi jënd bu baax moom maa ngi gis sama bopp macha allah. waaw événement bi moom ñu ngi koy pare moom ñu ngi koy pare moom macha allah ñu ngi koy pare moom xanaa ginaar yu seer yi rek ginaar moom amul moom waa ginaar moom amul moom seer na lool. bi moom pareel naa ko bu baax moom. waaw ñu ngi koy pareel bu baax maa ngi koy jëndal ay bagages. waaw événement bi moom wax dëgg ñoo ngi sant yàlla bu baax baax kii laa ne moom ñu ngi dugg ndànk-ndànk yow premier laataa ñu dugg ci événement bi moom xawoon naa dëgg trop trop gars yi naan moom événement bi externe dana neex waaye ñoo ngi sant yàlla bu baax kii laa ne ñu si moom waaw moom ñu ngi ñëw di jënd si bagage moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte ñun bu du événement tam lii moo nekk suñu liggéey ndaxte kii laa ne ba dañuy jaay engrais ñoom ñuy dem di jaaywaat di ci mën di gisaat seen bopp moo tax ñu ngi sant yàlla bu wér a wér moom kii moom ñu ngi dugg si xanaa xataa ay marché beeg yooyu noonu am ay client yoo xam dañuy dañuy taal dañuy taal jóge seen kër def ay déplacement ak yooyu noonu waaye client moom ñu ngi dugg si bu baax moom wax dëgg ndax ñun moom boo gisee ñun suñu place bi noonu parce que yi ñun prix angle leen di jaay ndaxte ñu leen tegal loo xam si ñoom dañuy mën jaay waat man cee gis seen bopp ndaxte réew mi fi toll nii réew mi dafa dëgër dafa metti waaw moo tax ñuy def prix angle daal l'essentiel daal li mën taam daal ñu ngi doj seen wërsëg moom ñu ngi koy jot bi neexul na quoi mais sant yàlla wax dëgg yàlla man ay sëba jaay ay promotion sëba def quoi waaw ñu ñëw temps en rek mais melul noonu nu mu la melee bu njëkk na wàññeeku bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla non bagage moom séer parce que promo laay def parce que ñaar taqe mi ay cinquante mille soixante quinze mille man maa ngi koy jaayee trente ba vingt cinq mille waaw a ak julli bi nii xat na et tout ça yooyu noonu mais sant yàlla daal. man ay bagages laay jënd parce que damay jaay. Euh, marché bi xat na dëkk bi métti na xaalis amul waaw waaw comme fi ma ñëw mi moom fii moom c'est abordable fii yooyu c'est abordable ah ñun daal ñu ngi góorgóorlu lépp lu ñu am rek pour xale yi ñun moom dañoo jëlale suñu bopp lép lu ñu am daal pour xale yi rek pour mën leen satisfaire seen besoin rek mooy loolu. tuuti rek tuuti rek dañuy foraatu rek bégal xale xam nga événement moom xale yi ñoo ci ëpp lu ñuy utiliser ñun mag ñi moom mën nañ muñ mais xale yi moom mooy loolu. ah fii moom marché bi moom instant bi moom bëri na net xat na boo fi ñëwee pour nga génn fi problème ngay am mais wax dëgg ñu ngi gérer jënd bi xaw naa cher tuuti mais ñu ngi koy gérer métti na trop ak événement bi frais yi dafa bëri yooyu ya ah. sama ñëw même pas moom lay dem jëli nii sama demee xam naa ne moom damaa nar a xeex ak tailleur bi moom ndax tailleur yi instant yi dañuy xat mais heure jour lii moom bi ñu la wax ne la moom lay pare boo demee doo fekk sa ñëw pare loolu mooy problème bi. waa fii dama ñëwoon pour jënd ay bagage jëndal sama mère ak yooyu ak xale yi loolu laa fi wusi woon waaw. ak ay tissus ay dàll lépp macha allah lépp lay jaay. waaw njaay bi ñu ngi sant yàlla bu baax nag di jublu Seydina Mohamed ñu ngi sant yàlla bu baax njaay maa ngi jar waaye nit ñi tamit dañu xam dernier moment la ñu xam daal bu ne suba la ak ginnaaw suba la ci lañ nit ñi di clients yi di gën a ñëw nag di jënd waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi jaay macha allah. clients yi dañuy ñëw waaw clients yi dañuy ñëw am na tam ay sàcc dañ ciy jaxasoo. ak clients yi jënd dañ ciy jaxasoo di ñëw waaye clients yi itam ñiy jënd tam ñi ngi jënd tamit ndax loolu mënut a ñàkk ci marché waaw sàcc yi dañuy ñëw clients yi dañuy ñëw ñëpp dañuy ñëw agresseur dañuy ñëw ñëppay ñëw xale yi seen ñëw pare na ñëw naa ko yàgg na ndax man damay damay ñëw am ay tailleur may ñëwal moo tax xale yi ñëwal naa leen yàgg na ñëwal naa leen ba pare waaw pare soo commencé samay ñëw man sama dalier moom ah ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mouhamed lépp macha allah kër ga lépp